jooy laa ko de wala ma ma bëgg mu xam. mu comprendre waaw dëgg mariages yoo xam ne il faut ñu bàyyi ko xel xam naa dina am ñu posé wu ay question euh, du ñu ne ay mariage forcé la mais force bi dañ koy def entre guillemets. Mm-hmm. parce que circonstance mooy tax nga nangu. waaw yaay wala. waaw am na ñoo xam ne kenn newu leen force da ngay sëy. waaw mais. mais circonstance leen bàyyi rek. waaw du ñu sëy du ñu sëy foofu. moom bokk na ci mariage circonstance mm-hmm. yooyu noonu mais gis na ni amu ci mbëggeel dix ans waaw ah, mais xam nga foofu yaay dañu ne am wax buy naqari sama xol nag ñu koy wax tout temps moo jigéen du bëgg day miin xam nga loolu am na sens wax jooju xam nga bu njëkk yu bari wax yu bari dañ ko daal génne pour dalal xel jigéen bi ñu mayee te forcé ko dëgg la di ko dalal xel bu ci yàggee tuuti dina bëgg dëgg la parce que signe d'encouragement la mm-hmm. mais xam nga sëy base bi mooy mbëggeel. dëgg la nga cofeel njaga dafa garaaw. dëgg la gis nga nit ki soo ko bëggee da ko yërëm. dëgg la soo ko yërëmee lu mu def nga baal ko. dëgg la. Youssou Ndour mi nga xam ne macha allah mar ngoon a yaasin mar yal na yàlla wéral baatam. amiin amiin amiin nee na mbëggeel ay sentiment la. moo tax situation rek la nee na mbëggeel su la jàppee même soo bëggul woon dara dina la ko bëgguloo nga def ko. loolu bëggee rek moo ko man dëgg la loolu cofeel gi nag boromam su amul ci mbëggeel su waaw bu hmm. amul ci mbëggeel dafa am benn ñagas ñagas mooy capitaine wàllu way foofu foo ko mu yeggale ko man xanaa mu jeex ba mu jeex <laughs> waaw loolu la xam nga macha allah dégg mel noonu <laughs> mais xam nga mantu sëy bu ñu ko daan bu ñu koy def dañuy koy teg ci mbëggeel mooy base bi dëgg la cofeel xam nga booy doog a sëy sax ki ngay doog a xam ngeen miinante dem di yow danga koy sopp mais soo ko miinee bu amee qualité noble parce que loolu dafay wax ni góor njariñ jigéen jàmm góor njariñ jigéen jàmm xam nga loolu su su mbëggeel amee mu lay toppatoo di la yëg la fonk la su yàggee même soo ko bëggul woon boo dee aswar di nga ko bëgg waaye am na góor ñoo xam ne neexu ñoo nekkal dañoo mel ne tànk bu dagg bu ñu def asi mantulaay amuñu jàmm amuñu salaam te gis nga jigéen soo ko talul yaa ngi ko yóbbu à jigéen da koy tal même su la bëggee te taluloo ko da ngay dem à la dérive faral di wax ci petite attention yi waaw parce que gis nga hmm. jigéen bu la bëgg jigéen dafa am jigéen ñoo xam ni dañu attentionné les petits mots mooy dundal seen bëggeel moo koy suuxat même bu fa am am ganewul hmm. mais madame tey da ngaa sañsee mais Mantou qu'est-ce qui se passe affaire bi dafa nice mais tu es toute jolie xaaral ma ñëw dolli mag ñi boo gisee ñu daan nax seen soxna yi moo war a gurug létt la gurug létt léttu defaru ba jekk ñu sa hmm. jëkkër yàlla boo xaw foq sa musóor tuuti mel ni koy jàllaale ma ne gay sëri bu wadd mu daal di ah mais hmm. soxna séew si létt yi tabarkàlla ana kële leen ma ko ma jox ko guró neexal la siiñ la yëg ak encouragé la ci nga defaru mais am na góor ñoo xam ni comme bant amuñu yëg-yëg ngay wax. Mm-hmm. parce que li ndaw si di nettali yëpp ci ñàkk yëg-yëg la bokk. te xam nga nit li mu amul du ko joxe kenn ko ne li nga am ngay maye. moo tax mantu le choix dans le ménage est très déterminant. Mm-hmm. le choix. Mm-hmm. dafa doy waar. parce que choix dafay déterminer personnalité nit. ak lu situation bi ñëw ñëw natal sa xol. parce que bu sa xol demul sa dara du dem. dëgg la yaay ndax si loolu mooy problème am xol baa bañ. lay lànk ca c' est plus profond. jéem na sax waaye mënul. aywa nee na jéem na jéem na waaye mënul. yàlla xam ne talu la. parce que nee na il au suuxat ba 2 du matin. te deful benn effort. bu jéem a dimbali ndaw si jëlee ko ci fi mu nekk ci ñàkk bëgg indi ko ci bëgg. te ndaw si moo lay jàppale ci say projet mooy les petits câlins. Mhm. bësal sa tànk ndaw si bëgg na koo bëgg na mais waa moo ko may l'occasion bu ko bëggee amul ko jox. te Mantou c'est ce qui manque aux hommes sénégalais la majeure partie mhm. bari na góor yi Sénégal yu defee ni tabax kër ga rafet jënd oto meublé di la jox billet nga dem te ñëw mooy sëy bi mais alors que leur femme leur trompe wala mi ngi am ak yow benn comportement boo xam ba léegi yow ci sa bopp même si tu ne dis pas da ngay am remords. Mhm. mooy amuñu attention. jigéen dañu koy tal. boo ñëwee sa kër da nga war a topp toppatoo sa jabar. c'est vrai am na ñoo xam ne di nga am picc ba picc ba wér du ñu xam ne am nga picc. am na góor ñoo xam boo changé les defee sa yaram effet sax ñu ko. looy diwa temps yi bu nekkoon a jigéen ju mu bëgg sax bu yàggee bëggee ba ruus ruus wala bi nga doon diwa temps yi moo gën a baax di xool say létt xool sa yaram xool sa état de santé am sa sa état d'âme mm-hmm. allo téléphone ci ko bëgg sax war ngaa xam ci ban état d'âme la tollu njaga ak fu man a ne soo la ne allo nga ne allo su bëgg amee mu am mutuel ci seen diggante war nga yëg ci ban état d'âme la nekk day am connexion kon góor ñi damay dal toujours jigéen ñu ñu ne ma jigéen góor ñi laa faral mais ñëw leen wëlbatiku xam ne jigéen fitna yoru ko góor day am njariñ dëgg la am jàmm day duum ndax jabar du les petits mots jonge dafa war ci góor war ci jigéen ah, yaay waxal les que tellement dañoo yàkkamti waaw mënuñu ko sax dañoo yàkkamti dañoo dañoo xadar loxo bi day diis. am na jigéen ñoo xam ne ba leen seen jëkkër gëjee message wala wax leen je t'aime sa mariage ba la woon te ñu ngi ci ay vingt cinq ans trente ans. de mariage dañoo leen ñu bëgg leen. maanaam dañ ko dafa mel ni dañ koo rëyee wax. Hmm. yaa ngi may moom góor ñi bari wax góor gu baax day salansi de. pourtant loolu day suuxat góor gu baax salansi yii xale yi def da nga koy defal sa jabar de. salansi yii Sidi Diop di def nii <laughs> ah, yan saa yi nga wéet ak sa jabar salansi de. Ah, waaw waaw nga yaay xale yi nee nan yaa ngi ci dëgg gu métti sutural la terlante mm-hmm. mais am sa jabar mu jonga mata ñi ñee koy apprécier mais tu ah. mm. su demee ñëw togg xaaral ma dem def sama ay pigeon xaaral ma def sama ay salade composée xaaral ma def sama yu baax lal dressé ñëw toog tegal la nga lekk ba su rek ni këm ma mel ni bant ah madame kontaan naa wala neex na bëri na taayete majestueuse wax lu baax mais kaay ma yóbbu la boo nga dem jëndi glace te ñëw yooyu day yokk wërsëgu góor góor gu la mën a taral jigéen gën koo nax moo la ëpp wërsëg ëpp yër téléphone bi gën dëgg la jigéen dañu koy teral jigéen dañu koy foog parce que sama borom ma ko foog ñu jël téléphone bi yaay man koy dëtt ñëw yaay pakatu dëgg nga wax papa Youssoufa ba Youssou Ngok Seck Seck waaw ñu ngi lay ziare Seck ñu ngi lay ziar bu wér Seck naaj bàjjan ñu ngi lay ziare ñu ngi lay dellu ziar Seck ñu ngi lay mastu coono man yi yëguma ko woon